mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp Pastef kuy opposition Sénégal suñ ko ëppaliwul député ñoo ko fal loolu yëpp ci juróom ñaari at kon sant yàlla mu leer ñu nag 2024 buñ ci yeggee ci jàmm ci kàttanu yàlla réew mi dina tegu suñu loxo leer loolu waxuñu ko ci ay xam nga léeg-léeg homme def surenchère mu leer ko ni ñetti nit toppuñu ko mu génn ne candidat laa damay jël réew ñun génnewuñu dërëm pour sénégalais toppuñu te fu ñu romb gis ngeen dafa xewoon loolu ak fi ñu jaar ba yegg si fii ku am seetlu am nga sañ-sañ ne bu soobee yàlla buñ ci ci jàmm réew mi tegu suñu moo tax euh, dama yërëm ñenn ñi que projet bi daje pale du complot mënu koo tere yegg woo ay magistrat di complot mënu koo tere yegg nommé ay chef gendarmerie ak police ñu lay jox assurance mënu koo tere yegg dem France ngemb la ak keneen ku muy doon mënu koo tere yegg lenn rek moo mën a tere projet bi yegg mooy ñun waa projet bi ñun suñu bopp gannaaw yàlla ñun rek ñoo mën a tere projet bi yegg su dee defuñu li ñu war a def mooy fàtte xiiroo ngaayoo yi bañ a nekk ci débat détail yi xam fi ñu jëm jublu ci liggéey bi te liggéey bi weesuwul duggaat ci dëkk bi ak ci àll bi surtout xam nga dama anasoon mois de novembre waaye sama yaram dafa xaw a